lépp ndax ñun ñëpp xam nañu ni faalul li may moom yàlla leneen lu la nit mën a wax daf lay nax buur la boo xam ni dafa sañ kattanam ak sañ-sañam foo ko takk weesu na ko ma yëkkati ay nuyoo yu tedd jëme ko ci yéen góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ziyaara bu baax a baax te di jéggalu jéggalu bi may jéggalu mooy su ngeen ma woowoon ci barab bu fekk si leen ma yàlla xam na ndax loolu lañ ñu jàngal ki ñu yaakaar tey ak ëllëg muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la dundee ba xëy sàngoo suuf ci modestie ci simplicité kon su ngeen ma woowoon ci barab man dinaa leen fekk si ma nuyu kilifa gi ngeen àndal góor gi àlla kan nga xam ni moo jiitu moo jiite magu Pastef yi di nuyu tamit jigéen ñi di nuyu soxna Aïda Ndiaye bi doon wax léegi moom itam ak ñi mu àndal ñëpp di ay jigéen waaye ngeen baal ma ma nuyu sama doom jële yaay daba maa ngi koy nuyu moom itam bu baax a baax ndax euh, ci wàllu papaam ak wàllu yaayam yëpp su ma ko nee jàkk rek am ñu bare lu sama xel dem kon ñu ngi naa li ngeen fi sama kàddu yi may yëkkati na waxuma ci turu Tiwaawan pour que ça soit waxuma ci benn ndigalu kilifa. sama engagement bopp laa jël bi ci wax en tant que citoyen sénégalais bokk ci réew mi te dara umpuma ci li ngeen may wax yépp xam naa ko à la fin lépp laa suivre du début à ndax saa boo waxee kenn génn ni moom day waxul ci ndigalu Tiwaawan il faut faire la part des choses ci Tiwaawan dafa am ñaari anam yi yu ma ci bokk benn bi ci wàllu famille la kenn ku nekk am nga sa famille man sama wax ci famille bi je suis entièrement d'accord nëbbatu waaye bu dee gis-gisu àdduna la je suis libre bu dee gis-gisu àdduna je suis libre kenn ku nekk itam ci ñun ak keneen ku dul ñun am nga gis-gis boo mm-hmm. nañ la bàyyeeg sa gis-gisam loolu mooy démocratie ceebu géej ma gën a ceebu yàpp ku ne sañ na ko waaye waxati na waxul ci kàddu Tiwaawan waxul ci kàddu kilifa yi lii sama gis-gisu bopp la ça n'engage loolu laay wax tout le temps ñëw fi nag wax waxu réew mi ñun ñëpp a ko bokk ku ni damay seetaan bis buy tàkk du la fa bàyyi benn waat honnêtement honnêtement. nit war na ëppale boppam loolu. gis nga kër gi nga nekk sax sama kër gi sama plat préféré xam naa ko. mais sama doom am na plat préféré. joxe dépense nag bu mu tax ma ne ko bis bu ne lii moo fiy toog loolu la fiy toog bés bés dina ñëw mu ne ma fi ñeme ñu fëgg ci voisin yi kenn dañ leen ceeb loolu mu ne sañ na dañu bàyyi naxante yi gis nga réew mi fi mu toll dañ coo toog waxtaan maslaa bi ëpp na raayalante gannaaw bi ëpp na à la da ngay dem ba boo dee seetaan émission yi ci télé bi da lay wóor ni léegi espèce su mbañeel mhm. extraordinaire mhm. mbañeel boo xam ni xamuloo lan ko waral iñaanante bi soxorante bi mhm. boddikonte bi te ñu wax ni jàmm nañu bëgg gis nga jàmm ko ko bëgg dafa am noo koy doxale ñu bëggee jàmmi réew mi nañu teggi tànk te bàyyi kii mu dem mm-hmm. bu fekkente ni bii yàlla dafa dogal nii la mu def xam nañu naam et conscience te ñëpp nee nañu defu ko ñu bàyyi ko mu dem def élection comme tout le comme moom bokkatul kay nañ ko bàyyi moom mu dem waaye li ma leen wax rek bu résultat yi génnee neuf mu nekk président dix heures loolu moom am na ndax dama xam bu baax fi may wax parce que affaire u tas Pastef ci ay kayit di sudur benn parti dem di dem ci ay euh, dem ci ay euh, seen seen siège di ko di ko di ko def yenn yi vraiment loolu moom c'est c'est cest à dafa dafa jikko jikko bu dafa tuuti trop quoi. dafa tuuti trop jikko bu tuuti la nit ki mën nga ko xeex mën nga ko contre mën nga def lu la neex mais gis nga li problème bi mooy xol bu ca xas ba dugg dootu fa jóg te xale yi ma gis ak ñi ma ci jot a xam ñi ma ciy gis ñuy doxe nii kenn mënatul génn lii ci seen bopp moo tax nag damay wax ni xaw ma lu yàlla di def ëllëg mais Ousmane bu nekkoon président mooy gën a sonn ku fi jëm sa jaar loolu tamit il faut mu xam ko Senghor jàll na fi boobu daf ñoo nax ba dem naan ñu 2000 Paris ce sera xaw ma Sénégal ce sera waaw ñu ngi en 2023 waaw fan la ani Paris ja ñun de fekkewuñu ko xaw ma ah lacrymogène Abdou Diouf ñëw nekk fi lim fi nekk ba xëy dem ma euh, monsieur Forage et madame mu dem na Ablaye Wade ñëw nekk fi ba dem Macky Sall ñëw nekk fi ba dem gis nga Ousmane bu yàlla dogalee mu nekk président ñooñu ñëpp moo leen di gën a sonn parce que loo na nit ñii loo xam ne yaakaar bi àgg na foo xam ni moom sax yaakaar naa ni xëy na mesuré wu ko rëy na trop parce que lii problème bi mooy dafa am loo xam ni moom la wax sénégalais yi jaay leen ko ba ñu jënd ko marchandise bi adapté ko di xaar nag la résultat. moo tax ma ni la moom moo gën a dugg ne rubba waaye ñu ngi ñaan suñu boroom yal na ko yàlla génne ci lii mu nekk yal na ko yàlla génne ci lii mu nekk yal na ko yàlla génne ci lii mu nekk ndax bakkan nag nekkul ci loxo nit bakkan ci loxo yàlla la ne waaye nañu ñaan yàlla ba ñu teggi tànk balaa safaan di xew su boobaa mu nekk saafara ju jur jàngoro nag. billaahi wa kitaab yi man maa leen ko wax maa ngi yemale fii kàddu yi su ma ci juumee ngeen baal ma di leen santaat te di leen masawu ci coono yi te xam ni li ma leen waxoon rek su ma xamee woon nii lay demee yàlla xam na ni fu ngeen mënoon nekk ma fekk leen fa ñu bokk toog waxtaan kon lu ma ci wax te safaan kiy dégloo keneen ki dégg wax jeeg jubluwuma ci lu naqari nit wala lu neex nit dama doon wax rek li may sentir te di ko dund en tant que sénégalais doomu aadama laa comme ñëpp dama am xol comme ñëpp mën naa juum mën naa wax dëgg mën nga vexé kii mën nga tooñ kii waaye loolu taxuma woon a jóg lu ci waay dégg muy safaan maa ngi koy jéggalu parce que doomu aadama matul waaye réew mi rek a ñu ñor nag réew mi rek a ñu ñor amuñu lu dul Sénégal yal na fi yàlla def jàmm yal na fi yàlla def jàmm yal na fi yàlla def jàmm mais pour encore une fois il est temps ñu jéem a toog waxtaan yëf yi ëpp na. lii xew kenn xamul lan la xale yaa ngi dee ci géej gi ñii ñu rey ci manifestation yi kenn xamul nu ñu toll te ba léegi seen ay wajur a ngi toog di xaar ah nañu jéem a seet beneen voie ak beneen moyen ak yeneen solution bu dul bii ndax doole yàlla rek am doole kenn amul doole ndax ku am doole. bés dina ñëw doole ja ñu kaañ la dugal la ci juróom-ñaari perkaal gas ba mu xóot rokkas ay mool nit ñi dem añi naani seen ataaya yàlla des fi di yàlla rek kon nañu bàyyi xel loolu nañu bàyyi xel bés boobu maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ok internautes yi nga xam ni yéenay seetaan NG TV ñu ngi leen nuy nuyu di leen wax ngeen dal ak jàmm abonné leen suñu chaîne activé cloche bi ndax vidéo bu dugal ngeen mën koo gaaw jot Serigne si da baax nekk doom ci ki nga xam ni moo di Alhaji asis Aziz baax ma ñëpp xam fa tabarakallah moom nag kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko daal dinay def tour di réseaux sociaux yëpp ñu ngi koy partagé fépp ci TikTok bi ak li nga xamante ni moo di WhatsApp bi waaye tamit ak bi muy déclaration bu ama am solo bi nga xamante ni Serigne Habib Sy Euh, Dabaax yëkkati na ko euh, jëmale ko ci problème yi nga xamante ni Ousmane Sonko mi ngi nekk di ko dund waaye tamit ak ñi nga xamante ñoo ko séqal lenn ci li nga xamante ni Serigne Habib Sy Dabaax daal dina koy révélé ci mën nañ koo tuddee déclaration bi nga xamante ni doon na ko amal euh, muy daal di mu daal di révélé ci li nga xamante ni moo di mbirum Ousmane Sonko muy grève de la fin bi nga xamante ni moom Ousmane Sonko nekk na ci waaye tamit moom ñax Serigne Habib Sy Dabaax xam ne na ni moom daal jot jot na ay version yu baree baree bari ñi naan Ousmane Sonko lekkul ñi naan Ousmane Sonko li ko ay eh, soxnaam di jox rek lay lekk waaye tamit Ousmane Sonko eh, nangul ku jeex ñam bi ñu koy jox yooyu yëpp moom nee na dégg na ko ci ay version waaye lenn rek moom la ci eh, jàpp mooy maanaam Ousmane Sonko moo yey ndax nag ku ndobin rey sa maam boo gisatee lu ñuul daw ndax ñi nga xamante ni ñi ngi koy fexeel ñi nga xam ne ñoom la jàkkaar lool ñi ngi koy fexeel ba ba léegi lu nekk ñi ngi koy jéem ngir faagaagal ko kon ñoom ñooñu buñ lay jox lekk war ngaa def la tout ngir moytu lekk googu ndax li nga xamante ni yàgg nañ la ko di ko mébétal euh, booba ak tey euh, kon nag mën nañ koo jaar ci lekk yi nga xamante ni ñu la koy jox euh, ba daal di ci am li nga xamante ni bëggoon nañ ko kon daal Ousmane Sonko moo yey ci loolu. waaye leneen li nga xamante ni dikk na ko te mooy moom xam leen daal moom bu doon politique wala muy bokk parti Pastef lay bokk Ousmane Sonko daf ko bëgg ci xolam. ndax Ousmane Sonko nekk loo xamante ni moom daf ko koy seedeel nii rek ci loo xamante ni xamu ko moom nee dafa toog ak Ousmane Sonko ñu waxtaan toog ay heure moom ak ki nga xamante ni moo di Sonko kon li ngay li nga xamante ni mi ngi koy seede ci Ousmane Sonko lu mu xam la moo tax mu koy wax ci ki nga xamante ni Ousmane Sonko waaye tamit eh, ñii nga xamante ni ñoom la ko seeqal muy wàllum politique d'accord nee nañ ko mënatoo bokk ci élection yi àtte nañ ko ba ne ko mënatoo bokk lan la li nga xamante ne moo di parti Pastef wala tamit jël ay ay ko yabal nga xamante ne moo di seen siège yi moom daal loolu acte bu ndaw la ko jàppee jàpp na ni loolee daal du dara li nga xamante ni ñu ngi ko def naan dañuy tas li nga xam ne moo di parti Pastef loolu bu ñu koy jéem it dana seen bopp rek waaye mënuñu ko ndax Pastef ci xol yi la nekk waaye tamit leneen li nga xamante ni moom Serigne Habib Sy euh, Dabakh wax na ko ci déclaration boobu mooy ki nga xamante ni moo di président de la République ginnaaw bi nga xamante ni euh, demoon na ziyaare ki nga xamante ni moo di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon daal war naa am loo xamante ni euh, roote na ko fa euh, tànq ko fa wéy di baale di jéggale ak di jëllale muy kàddu yi nga xamante ni Serigne Habib Sy Dabakh yëkkati na ko waaye leneen li nga xamante ni jàpp nañ ko ci déclaration boobu ba léegi muy moom xam leneen daal keroog bi nga xamante ni seetaan na soxna yi Ousmane ko ñu def déclaration daal moom rongoñam dal na ci dënnam muy loo xamante ni tiis na ko lool muy kàddu bi nga xamante ni eh, ñaari soxna yi Ousmane Sonko yëkkati na ko seen janoo bi nga xam ne doon na dox ak ki nga xamante ni moo di Pape Alé Niang njiital muy eh, déclaration boo xam ne triste na lool bi Habib Sy Dabakh xam leen ni maanaam moom daal lépp li nga xamante ni mi ngi xew ci ci ci langue politique bi lépp mi ngi koy seereen ak di suivre lépp ne dara ump ko ci ba ci keroog bi nga xamante ni Ousmane Sonko waloon na ko digganteem ak Mame Mbaye Niang ginnaaw bi nga xamante ni toj nañ pare-brise otoom nee na loolu yëpp mu ngi koy euh, suivre mu nekk lu metti lool ci ci ci ci xol daal can koy ñaawlu bu baax a baax Serigne Habib Sy euh, Dabakh kàddoom yi ñu di ko partager ci réseau yi mu nekk loo xamante ni maanaam genre discours la boo xamante ni am solo fàttaliwaat euh, mboolem jullit yi gor sa Serigne Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh fa tabaarakallah muy kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko moom Serigne Habib Sy Dabakh xol yeeg xalaat yëpp fàttalikuwaat alaaji Abdou Aziz Sy baax bi nga xamante ni moom euh, ni ki fan yi ñu dëgmal sax dinañ ko fàttaliku muy le 14 euh, septembre incha allah ci la fi bàyyi ko woon moom baram boom moom borom bi jaaw ba saybat alhamdi fa tabaarakallah kàddu yi nga xamante ni doomam ji yëkkati na ko tey nag ñu ngi koy partagé fépp muy discours bu am am solo